dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi ko quotidien xëy nag séq waxtaan wu yaatu ak Mamadou Ndoye bu LD Debout daat nay wax lu bare bari nag ci biir yéenekaay groupe promo consulting bi daat nay wax ci réewum Sénégal ak ndóol gi nga xam ne jamono ji maanaam téeméer boo jël ñeen fukk ya ak juróom benn yëpp dañoo ndóol ba maara day taali moom Mamadou Ndoye ci biir journal bi di réew mi quotidien daat nay wax ndaw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réewum Sénégal te maanaam te ñàkk liggéey ñàkkub xëy toll nag ci ab lim boo xamante xamante ni jamono ji kenn mënu ko daal di xayma yéen kaay gii di l'observateur ak laas mu xëy dikkal ñu ci collectif ñoo lànk ñoo ba ñoom nag dañu doon def campagne sensibilisation ci commune fas Gueule Tapée waaye nag dañu leen a di teg loxo yéen kaay gii di laas mu ñu xamal lan ñu caat bu yaanaa mar Alioune Sané ak Fou Malade ak lu toll daal maanaam ci gàttal fukk ak juróom ci collectif ñoo lànk jamono ji nag ñoo ngi ci loxol yoona yéen kaay gii di l'observateur ñu fekk fa maître Khoureychi Ba mi nga xam ne maanaam mooy seen avocat moom nag la mu jàpp mooy gi ñu leen teg maanaam tegewul fenn yéenekaay gii di réew mi ko quotidien mu ñu xamalaan ñu collectif ñoo lànk ñoom nag dañu doon séddale li nga xam ne mooy ay flyers jëm nag ci sensibiliser askan wi ci courant bi nga xam ne dañu ko daal di yokku waaye nag biir surnal bi mu ñuy xamal laa ñu nag ana na kañ la séddale ay flyers maanaam nekk crime yéenekaay gi mu ñu xamal laan ñu ñii nga xamante ni daal teg nañu leen loxo ñoom caat bu yaanaa mar dañu leen a nag li nga xam ne mooy ay ñu lànk yéenekaay gi mu ñu xamalaan ñu waxuma la sax ay PV waaye nag laaj yi nga xamante ni moom lañ leen doon laaj dañu dañoo lànkoon kandaare bañ kaa daal tonto ci biir journal bii di la tribune ñu fekk fa docteur Babacar Diop moom la mu xamle Famara Ibrahima Sagna mi nga xam ne moo jiita dialogue national bi dafa war a tekki ndombal tànkam ndax warul nangu benn yoon Macky Sall di ko dugal ci ay njuuj njaaja yéen kaay gii di Les ñu fekk fa Sayer Tambédou moom nag mu bokk si dialogue national bi la mu xamle nee na nag dañu leen di war di rembourser li nga xam ne mooy seen transport bu ñu leen joxul nag maanaam pér jëm loolee nag boo moytuwulee dina tax membre yëpp daal di dakkal li nga xam ne mooy dialogue national bi yéen kaay la turbine ñu fekk fa nag mu njaay siise moom la mu xamle ne ne opposition bi bu ñu waxantee dëgg ñoom ñoo wuti wutoon dara ci dialogue national bi te nag li nga xamante ni Abdoulaye Wade wax na ko ci dialogue national bi dëgg péng la waaye nag yéen a kaay gii di réew mi xëy bàyyi mbir moomee wax ci mbiri Kumba Kansar mi nga xam ne moo réeroon nag te ñu gisee woon ko ci Touba ñu doon wax ne dañu ko kidnappé section de recherche daan na koy déglu yéen a kaay gi mu ñu xamal naa ñu li daal mooy Kumba Sarr kan moomee waxi kasaw kasaw ak waxi ball puy da rek waxi ku daanu sib sareta moom la doon wax yéen yéenekaay gii du l'Observateur mu ñu xamal nañu nag Kumba Kan daat nay wax ana nan la rëccee ci ñi nga xamante ni ñoo ko tegoon loxo waaye nag la nga xamante ni daal enquête ba daan na koy wane ci mbiri Kumba Kan mi daat nay doy waar loola yéenekaay gii di réew mi Quotidien ak l'Observateur ak enquête dikk ci Assane Dioma Ndiaye mi nga xam ne dafa wax ne yàmba nag dañu ko war a nag daganal ci réewum Sénégal ci réewum Sénégal dañu ko waroon na organiser bàyyi kenn ku nekk mu am sañ-sañ jënd yàmba di ko muqi nu mu ko neexee l'Observateur ne débat bi nag jamono ci daan nay ci wàllu woowa yéenekaay gii di Sud Quotidien ñu fekk fa Moustapha Diakhaté la mu xamle nee na parti bii di APR ak pëccëxoo gi nga xamante ni am na si commission discipline nag bu ñu ko fa tegee daal keñu fa war a njëkk yóbbu mooy Macky Sall ndax su dee violé teg si parti bii di APR Macky Sall moo sa jiitu jamono ji li nga xamante ni moo jota mooy jéem a lijjanti ginnaaw Macky Sall ana kan mooy jiite réew mi yéen kaay gi du ñu fekk fa Mamadou Diop Decroix nee na nag tontu bi nga xamante ni Macky Sall tontu na ko ci lu jëm ci troisième mandat moom ànd na ca Moustapha Diakhaté na man ànduma ca benn yoon ndax am njiitu réew buy wax ako askanam dafa war a wax lu leer naññi yéenekaay gi di L'As njiitu réew di président Macky moom nag dafa demoon ca Londres waaye nag ba muy def ab déclaration ci kanamu militant yi di militant yi APR yi benn soxna daal benn femme moo génnee rek sa ndaje ma di yuuxu naan libéré Guy Marius Sagna Macky nag mujj daal di jaaxle yéenekaay gi mu ñu xamal nañu lu jëm ci wàllum faux médicament njiitu réew mi nee na nag li muy rey ci askan bi kenn xamul nu mu toll nag daan nay askan bi yëpp kenn ku nekk jàpp si Yankhoba Diattara bu nag nee nekk première partie de l'opposition te nee na nag ñoom ñoo ngi koy doxala yéen a kaay gii de la turbine ñu fekk fa Mandiaye Cissé la mu xamle nee na jamono ji nag maanaam ñu wax côté dund bëri na ñoo xamante ni ñoo nga ci opposition bi ñoo ngi def ay dëbal dëbal ngir nag dugg ci gouvernement bu Macky Sall bi réew mi quotidien ak l'observateur xëy nag daal di wax ci mbir mu doy waara benn soxna maanaam benn femme boo xamante ni daal dañu ko rey ba pare nag bopp ba ne mes ne mentañ kenn tegu ko bëta yéen a kaay gi nee na ca diwaanu Kolda la xewee yéen a kaay gii di sunu làmb dikkal ñu ci combat revanche bi nga xamante ni jamono ji am na ab promoteur boo xam ne ma ngi koy dox diggante Eumeu Sène ak Bombardier Eumeu Sène 60 millions la ñu ko daal di proposé Bombardier 40 millions yéenekaay gi ba tey daal di dikk nag ci lu jëm ci wàllum tàggat yaram la mu xamle nee na nag Manchester United ni ki démb Liverpool defoon na ko maanaam ñoom Sadio Mané journal bi xëy samp ab laaj na Liverpool nag jamono ji maanaam kan moo koy téye kan moo koy arrêté ndax championnat bi ba mu commencé ba léegi nii amagul benn défaite